ñoom ñii fi mu nekk ni bàjjen yi ñun acteur yi légui ñun ñep ñoo bokk liggéey muy bàjjen ak relé li mhm. ngi leen di ñaaxaar toujours ñi teel jégué hôpital yi parce que sétlu nañ ni aussi dañuy ñëw tardivement pour consultation yi bu ñu ñëwee tardivement comme ñun mère enfant dañ la war a topp si ëmb ba ba sa njur ba dañu war a topp xale bi mhm. moo tax ñun loolu daf ñuy soxal pour ñuy mën a teel a ñëw di seen ay visite mhm. parce que comme ni ko garab yooyu ñu leen di jox pour ñu war a sibaru bu ñu yéexee ñëw ñëw ba 4 mois wala 6 mois di soog a jël mhm. am boobaa dinañu tardé mhm. waaw à partir de 4 mois bu ñu jëlee seen première dose un mois juste rek bu ñu ko jëlee dose bi bu ñu ko jëlee noonu war nañ ko jëlaat looloo tax fi mu nekk nii bu ñu leen perdre de vue noonu maîtresse dañuy dépouiller bu dépouiller ñun bàjjen bu nekk acteur bu nekk si quartier day dem sax léegi jox leen seen ay garab moo tax li ñuy gën soxla daal mooy ñoom ñuy teel a jege hôpital yi ku si woon na lor rek ñaari weer rek ñëwal hôpital commencé def say consultation ñu bari dañuy toog ba ay ñeenti weer juróom benn weer te bu boobaa foofu duñ la mën a jël en charge complètement alors dañu seetlu ne ñu si bëri jamono boo xamee ne Covid bi mu ngi fi toll da leen taxoon a ragal souvent ñuy dem si structure de santé yi amoon na amoon na ay VAD yoo xam ne war nañ ko def tout temps wala ñuy respecter seen rendez-vous mais loolu peut-être mën leen ragal def dem ci structure de santé yi la ngeen leen di wax ñooñu ak ndax constaté ngeen li mu amoon na dañu mujjee ñun ak avec tous les risques ñun acteurs communautaires yi di dem vers ñoom pour ñu ñëw di parce que ñoom ñëpp dañ doon ragal di ñuy ragal na ñu xam ne loolu leen téye acteurs yi dañ doon dem si dëkk bi dem ba seen kër ñu def seen ay VAD ñu daal di leen kii ñu ñëw fexe ba orienté leen ñu ñëw wala ñu gunge leen sax ñoom ñu ñëw mhm. waaw noonu lañ mujjoon waaw mooy de sécurisé bi moom la ñu mujjoon kii sax ñu dem mais méthode boobu ba léegi mu ngi am ba jusqu'à présent moom mhm. arrêté wuñu ba démb ñu ngoon sax sur le terrain kon est-ce que du jar ngeen wax leen ne amuñu lu ñuy craindre ñoom ba ban la message nga leen di lancé jamono bii dans sax sens li ñu leen di lancé fi mu nekk nii amuñu dara lu ñuy lu ñuy jaaxle daal lu ñuy am njaaxre mhm. ndax koñ bu nekk acteur nga fa boo mënul dem sax ñoom bu ñu ñëwee comme yow ñëw ñëw pour ñaax la nga recevoir leen ñu wax la dinañ la euh, dinañ la xaymaal lépp li nga war a def waaw moo tax ñun ñuy dem toujours vers ñoom pour ñu mën a ñëw def seen ay consultation voilà léegi